yàlla na borom bi subhaanahu wa taala defal ñu jàmm Sénégal sotti yërmandeem assalaam wal afa wal aafiya wa tawfiq wal baraka wal rahma yàlla na ko yàlla sotti Sénégal ak fépp doomu Sénégal nekk yàlla yàlla gindi ñun ñëpp allahuma amin ya rab ñi feebar ñëpp yàlla yàlla may leen wér may leen tan ñi nekk ci hôpitaux yi wala ci kër yi ñi gaañu suñu boox yàlla yàlla yërëm leen xale leen aljanna firdaws amin ya rabbal alamin yàlla na yëkkati Sénégal yàlla na borom santa may ñu ay njiit au niveau politique yoo xam ne yu bari yërmande lañ ci seen population ci seen njaboot ci seen peuple ñoo xam ne ñu conscient ni kat am na ñu fi nekkoon ay politiciens ni ñoom wala ñu leen raw sax waaye na ñu tey ñoo ñu ngi ci suuf suul nañ leen dee nañ waaye ñu conscient ni ñoom it dee nga leen di xaar bàmmeel a ngi leen di xaar bés penc a leen di xaar bu ñu juboon maandu aljanna moo leen di xaar waaye bu doon dañuy détourné di wax dul dëgg di sàcc di nax nit ñi di profito ñoo ñu xam ne safara lañ gën a jege yàlla yàlla may ñu njiitu diine yoo xamante ni ñu ragal yàlla lañ ñoo xam ne seen kàddu ak seen jëf day dëppook dëgg ñoo xam dañuy jàngal waaye ñu wuyoo seen tur mooy nitu diine yoo xam ne ñu wuyoo seen tur jàngal kan mooy yàlla màggaayu yàlla ni yàlla borom la waaye du morom moom rek lañ war a jaam wéetal ko te ko bokkaale ak dara jàngal ñu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sunnaam waaye ñan ñooy sahabatul kiram radiyallahu anhum ay nitu diine yoo xam dañuy jàngal respect suñuy wayjur naam respe li nga xam mooy weey jur ak respe mooy que ni nit tout simplement jàngal ñu tamit mooy valeur ak vertu ak jom mooy dañoo war a liggéey allahuma amin ya rabbal alamin